waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah lii wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi suñ ko déggee seen xel yépp dina dem ci weeru koor weeru sell barkeel te tedd ñu koy dundal bu baax a baax nag ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina fii ci grande mosquée bi muy jumaay Touba ju mag ji at mu jot ngeen ci ànd ak daayira mu xaddamatul xidma ñu ci amal liggéey yu am solo ci ponk yu wuute. mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci kooru 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di atum 2024 ci programme yu am solo yoo xam ne daayira mu xaddamatul xidma moom la leen fas yéene indil ci biir weeru koor gi. ñu koy dooree ci séentu weer wi ci ñaar fukk ci baraxlu su weeru feeñee ñu ànd ak yéen ci naafila gu njëkk ci jumaay Tuubaa ji ni ñu ko amoon ni ñu ko baaxoo di amalee at mu jot ñu ci ànd ak imaam Serigne Fallou Mbacké ci teewaayu mbooleem jullit yi mbokk yi noonu la ñuy wéyee ànd ak yéen fii ci grande mosquée bu Touba ci njàngum fajar gi nga xamante ni dañ ci ànd ak at mu jot Serigne Ibrahima Gueye ak Serigne Abdoul Ahad Touré. mu nekk loo xam ne it fajar gu nekk incha allah dañu ko am fii ci grande mosquée bu Touba ci diir weeru koor gi noonu lañ ko wéyalee ginnaaw tàkkusaan gune bu ñu jullee ba noppi ci conférence yu mag yi nga xam ne dañ koy amal fii ci euh, jumaay tubaa ju mag ji ci conférence yoo xam ne dañ koy ànd ak boroomi xam-xam yu kawe ci ay thèmes yu wuute yoo xamante nii day ñeel nekkinu askan wi waaye dañ ñeel li nga xam ne moom moo di diine ji loolee incha allahu rabbi ginnaaw takusaan gu nekk da ngeen ko amal daan nañ ko amal fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci teewaayu mboolem ñi nga xam ne bëgg nañ koo euh, assister. dañuy jublu ci li nga xam ne moom moo di ndogu yi. xam ngeen ni at mu jot daayira Muxaddamatul Xidma ak mboole partenaires yi nga xam ne ñoom lay àndal liggéey bi dañuy jël ay millions yu takk lool di ko def ci ay ndogu di ko def ci yokk jumaa ji waajal ko ba mucc ayib ngir mboolem jullit yi nga xamante ni waxtuy ndogu da leen fekk ci jumaa ji wala lu ko jege ñu mën fee ndogoo ci ndogu wu mucc ayib loolu incha allah daañu ci ànd ak yéen waaye noonu it la ñuy àndee yéen li nga xam ne moom moo jëm ci mboolem activités yi weeru koor gi moo xam ay réaction lay doon mbokk taalibe yi nga xam ne dañ fiy ñëw ànd ak waa jumaa ji muy daayira Muxaddamatul Xidma li nga xam ne moo jëm ci weeru koor gi ni ñu koy dundalee ñoom ñëpp incha allah daañu taataan seeni kàddu ñu fas leen ko baaxee waaye noonu la ñuy ànd ak yéen ci xibaar yoo xam ne dañ leen koy baaxee muy xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di Touba ci mbooleem bërëb yi nga xam ne dañ fiy dundal weeru koor gi moo xam résidence Cheikhul Khadim la fi nga xam ne fi la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di nekk ndogu Baye Fall yi ba ci mbooleem loo xam ne nit day bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di tubaa kon mbokk yi lii la daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moo nekk fii ci grande mosquée bu Touba indil leen ci weeru kooruk 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2024. incha allah ñu fa yéene ko diffuser ci mbooleem plateforme yi nga xamante ni moom la daayira Muxaddamatul Xidma yore muy MK TV muy GMT TV. waaye ànd kook mbooleem partenaires yi nga xam ne at mu jot dañuy diffuser en direct mbooleem waxtaan yi moo xam chaîne de télévision yi la moo xam site internet yi la ak képp koo xamante nii rajo nga yore bëgg a diffuser li nga xam ne moom moo di waxtaan yooyu wala mbooleem activités yi nga xam ne dañ ko amal fii ci grande mosquée bu Touba. ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu gën fee yàgg loolu te gën a wér ñaanal leen koorug jàmm ak koor gu ñu nangu.